ku xeex sida yàmba ak dorog gone googulee moom moomee ndimbal réew bu dee garab xale yaa di reen yi kon jóg leen suuxat suñu réew ndax mu jëriñu la grande coalition wàllu Sénégal loolu mooy lan mooy liste bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko jiite bu mu ko jiitee Karim Wade nekk ci ak yeneen leader yu nekk ci biir Sénégal fii ci département Mbacké nag Serigne Cheikh Bara Dolly moo jiite tête de liste majoritaire soxna Astou bu Serigne du Borom Dër bi jiite proportionnel muy liste boo xam ne ñëpp ci am yaakaar ñëpp ci am yaakaar ndax soxna Astou moom rek jaroon nañu vote liste moom kese bu ci nekkoon rek jaroon nañu vote liste bi. ndax kuy sa waajuru góor ñu ne sëñ Abdou moom Serigne Touba loolu doy na doy nañu voté liste boobu muy ab sac boo xam ne Ablaye Wade da koo yëkkatiwaat joxaat ko yoonu murit Ablaye Wade moom kenn du laam-laamee ak muritam mooy président bi nga xam ne moom moom ba mu fi jógee la tuubaa gëj a sentir gëj a sentir ab président ci Ablaye Wade lañ kon donc buñ ñu amee doomam. mu présenté mu wane mu wane qualité yi nga xam ne bàyyam wane na ko ci njàmbaarte ci liggéey ci xam-xam kon kooku waa Touba dañuy def lu dul takku di ko soutenir di ko xaar ba nga xam ne 2024 bu ñëwee ñu yombalal ko mu jël réew mi léegi nag élection day am fii ak weer ak i fan mooy le 23 janvier bi ñu jëm élection yooyu moom la ñu tuddee élection gox gaat comme ni ko soxna Fatou ne waxee ñu war a tànn ñi nga xam ne ñoo ñoo ñooy teewal Ablaye Wade ci département bi maanaam ñoo yor programme Ablaye Wade ci département bi ndax PDS moom lépp lu ñuy liggéey rek eh, ab ci ci ci programme Ablaye Wade ci lay tëdd kon donc buñ amee list boobu kon du ñu def lu dul wan ko ñëpp ndax ñëpp xam nañ fii guub eh, liste bu mboq bi am guubu dugub bi conseil départemental mooy lan. mooy li nga xam ne moom la ñu xëccoo mooy lan conseil départemental ay ay bànqaas la ay pàcc la yoo xam ne maanaam état du Sénégal waxuma Macky Sall mais état li ñuy woy état moom moo jël ci ay pouvoir am jox ko département bu nekk Sénégal ne dimbaleel saw askan noonu laa ko mën a tudde yooya bànqaas yooyu bokk ca wàllu wér-gu-yaram bokk ca wàllu xale yi bokk ca wàllu njàng mi bokk ci wàllu jigéen yi foofu rek laay am ci ñeent yooyu ndax jàpp naa ne jataay bii li ko gën a soxal mooy jigéen ñi ak ndaw yi ak njàng mi ak euh, wér-gu-yaram gi ndax boo amee wér-gu-yaram ñàkkoo dara bu xale yi jàngee am fu ñuy jàngee yombal jàng bi ji parents yi dinañ kontaan dana leen oyofal dem ak dikk bi yobbu bu ñu amee développement lu mel ni soxna Astou li muy yëngu di forme jigéen ñi ak lu mel ni li ngeen yëngu nii bu ñu ko yaatalee ngeen am financement ba mën a am lu gën a ëpp li ngeen di joxe ci ay omo ci ay transformation yi ngeen def seen kër day gën a yombal li ngeen liggéey léegi àdduna tollu na foo xam ne dem mars sax moo ngi waaj a xewi nan lay xewee mooy da ngay toog sa ginnaaw kër tuuti rek nga am fa sa benn petit maanaam benn tool tool maraîchage boo xam ne yow da ngay ñëw rek dagg li ngay dagg dem tool taal loolu bu amee jàpp naa ne jafe-jafe yu bari dina wàññeeku jàpp naa ne jàpp naa ne loolu loolu waa nga wàññi dem marché bi sa boroom kër bi nga xam ne mooy jóge jële ci poos naa jox ma bu boobaa day gën a kontaan nekk la ay financement yu ndaw ay financement yu ndaw conseil départemental ca teg loxoom ba yooyu gën a jàppandi ba formé leen financé leen ngeen di liggéey ngeen di mënal seen bopp mënal seenu njaboot ndax jigéen mën naa dem ba yor kër gi nga xam ne góor gi moom lu mu denc rek lu mu liggéey rek da koy denc ca banque ba di di dajale pour am yeneen kër léegi wàllum jàng mi buñ ci duggee nañ ne Touba ñi fi jàng ñëpp dañuy paas wala di njëkkante oto di daanu paas bi yenn saay apprenti yokk yokk paas yi xale yi jaaxle yooyu yëpp tey jii conseil départemental bi fi nekk wala conseil départemental biir ñëw bu bu amee ay jàppandal yu mu def ci transport bi élèves yi mën nañu ci njëg boo xam ne du leen dig dara wala boog sax mu leen ko mën naa nekk ndax volonté la rek volonté rek ndax conseil départemental bi jëndoon na ñeenti bus xaw ma ñetti bus ñetti bus yi bi mu ko jëndee bu nekk 20 millions la ko jëndee bus yi doxut bus yi boo demee moom fa woon gaare kon donc loolu du bilan. nga jël 20 millions li may wax nag lu leer la ci kayit yu leer laa ko teg nga jël 20 millions jëlaat benn 20 millions jëlaat 20 millions jënde ko ay bus bus bu nekk nga ne 20 millions nga ko jënde bus yooyu mënul daw diggante Mbacké ak Touba panne na loolu jàpp naa ne loolu pratique yooyu ñun bu ñu jëlee affaire bi dafay jóge ñun dañoo bëgg lépp lu ñu def. soo bëggee dégg-dëgg sax nit ñi ay xeeraay na nit ñi produire ko indi ko Sénégal <laughs> léegi conseil départemental bi ñun suñ programme mi xëy na du mënuñu jataay bi dana xat ci ñu étaler lépp fii waaye dañu ci jël ay poñ rek wax ci mooy lan mooy maanaam dañoo bëgg jël conseil départemental bi xamal nit ñi mooy lan d'abord ndax fi mu toll nii booy génn ci mbedd mi dox ku la laaj conseil départemental doo xam lan la ku la laaj fu mu nekk doo xam fan la. ku la laaj kuy président bi doo xam kan la kon yooyu lañ bëgg mu jóge fi ñu xam d'abord nit ñi xam njariñu conseil départemental xam conseil départemental xam conseil départemental mooy lan xam conseil départemental fan la nekk loolu bokk na ci suñu programme ndax dafay tumuranke ci département Mbacké département Mbacké doo sentir ci benn programme ñu la conseil départemental moo ngi nii moo ngi intervenir wala kii mooy président bi du teew loolu bokk na ci programme bi dañoo bëgg a jël aussi conseil départemental delloo ko askan bi njariñu conseil départemental du njariñ loo xam ne da nga koy dugal njariñ loo xam ne daa war a delloo ci askan bi kon donc moo tax ñu leen di woo yéen ñii ne leen ñun suñu liste mooy list bu jaune bi ngeen faral daan wote mooy liste Ablaye Wade bi zone bleue bi zone bleue bi ci am gubu mboq bi ci digg bi boobu nag fii ak weer danañ am voté ku leen wax Touba amul voté da leen nax ndax nit ñi ñoo ngi manipuler ay information naan Touba duñ voté Touba dañuy voté ku nekk ku nekk fa nga daan voté ngay voté waat yéen ñi jàpp naa ne daaru man a arrondissement gii ngeen daan voté kon donc bu le 23 bu leen xuloo bu leen xeex sangu leen ba set dem voté ñu ñëwaat bu laajee ay transport dinañ leen bàyyi ngumb dinañ leen lijjanti loolu ñu dem ngeen voté ci jàmm dikk ci jàmm. damaa waaw baax na yow neex ngaa jugal comme am nga pièce rek neex ngaa jugal waaw neex ngaa jugal waaw jaaxa baax na après après <laughs> léegi non non dëgg la loolu day yokk xam-xam sax laaj day yokk xam-xam léegi daal ñoo ngi leen di woo yéen ñëpp élection yaa ngi ñëw riir mi nag dina bëri waaye ñu bari Macky Sall la liggéeyal ngeen jàpp loolu ñu bëri ci liste maanaam dañuy wut ndëgër laay pour dem ci pour dem ci Ablaye pour dem ci Macky Sall kon donc nag na ngeen ci bàyyi xel bu baax ñun pedes ñun fañ xam fañ leen xamoon démb fa lañ nekk ba léegi ñoo ngi leen tàllal loxo bu baax a baax a baax ngir njariñu dëkk bi. muy élection locale yi xamante ne moo am muy wote yi gox goxaan kenn ku nekk li la neex sa gox yaa koy mën a changer sa bopp ni koy changer la sa bopp da ngay xool ki gën ci yow démb nga jàpp ko tey ki gën ci yow démb nag ñun waa PDS xam nañ ko. ku fii itam defe naa war nga koo xam ndax Laay Wàdd bi muy gouverner fii nii waa Touba gis nañ seen bopp bu baax a baax ci état gis nañ suñ bopp bu baax a baax ci état ndax respecté nañu respecté suñ kilifa yi xamante ne moom la ñu am te ñun ku respecté suñ kilifa yi xamante ne ñoom lañ yaakaar àdduna ak alaxira ñun luy suñu warugar ñu jàpp la kon Laay Wàdd jàppale ko mooy jàppale suñu bopp wàccale ko si Karim sa Wade doomam ji ndax dañ ku la may ak ndékki bu la gëj añee bu la digee reer nga war koo mën a gëm. Touba Jëm ca kanam nag la koy mooy mooy yéen ñii nu ànd ak yéen ànd ak moom moom sëñ Cheikh Bara Dolly Mbacké nu bu bis baa nu takku ga nu takku quatre heures ci ngoon dañ fexe ba gagné conseil département bi. loola mooy sunu ndam loola kon dégg nga ko président nee na dix heures dix rek na fekk nu battre gi nun ñu dem ñibbi dem añi fu waay mën a nekk bu ngeen xëyee bu ngeen naan ni ngeen a tàngal café takk seen digg su ay woto jox leen ko jox leen kon yàlla na yàlla fay leen ñu ngi daal encore une fois daal li daal mooy na takk bokk ndey bokk baay fa fas conseil département bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf ngeen a àndal ku ngeen